waaw mu nekk am solo tey arbitre bi joxe na coup d'envoi mi ngi ni teg yaakaar naa ni mbër mi mi ngi def ay léemaay ci diggante junior ak ki nga xam ne mooy Bouba Jaxaaw ah ndeysaan toj na nen ah ngaaw ko teg na ko ci suuf tàllal na loxo yo tàllal na droite bi ak garde ba ca kaw ci diggante ñaari mbër yi kenn ka nga teg tàng bi ca omba ñi ngi jiital càmmoñ ñoom ñaar ñëpp càmmoñ lañ jiital ci diggante ñaari mbër yi ñi ngi léewtoo ñi ngi lewtoo ci diggante Junior ak Bouba Jaxaaw ñi ngi léewtoo ci combat bu neex nag tey ci soir bi nga xam ne dañ koy bind tey mooy ci diggante ñaari mbëri Bouba Jaxaaw ak Junior ña ngay damante baaraam ñaari mbëri mu nekk lu solo tey tey ci stade Maniang Soumaré combat bu mag nag ñoom ñaar ki ci nekk mi ngi nu teg ku ci nekk mi ngi léewtoo benn loxo ak benn garde ba ca kaw ñi ngi léewtoo mi ngi dox ci kawam mbër maa ngi dox ci kawam borom ngemb lu xonq li mi ngi dox ci kawam mooy Bouba Jaxaaw moo yor ngemb lu xonq li weex li ñoom ñaar ñu ngi ni teg ku ci nekk ah ña ngay damante baaraam ci diggante Bouba jaxaw ak Junior Bouba Jaxaaw moo ngemboo ngemb lu xonq li mi ngi léewtoo a ah, dóor na Bouba Jaxaaw ñi ngi dóorante Bouba Jaxaaw arrière na ndeysaan ñi ngi xeex ña ngay xeex ñoom ñaar laa ilaaha illallaah laa ci diggante ndeysaan mi ngi dox ndeysaan jël na ko boba jaxa bagnna boba jaxa bagnna ñom ñaar ñi ngi ci kaw ndaysan ah ma ngay bëgg a ma ngay rappel ci suuf junior ndaysan ndeysaan oho tay histoire dina bind li ndaysan mu nekk combat bu mag xalé bi xalé yi ñi ngi bëre bu neex ndaysan tay ci mañang sumaré muy combat bu mag e ndeysaan déggal li combat bu mag a ngi nii ci diggante Junior bu Morola ak ki nga xam ni mooy bu Bouba Jaxaaw ndeysaan ñi ngi léewtoo nag ñoom ñaar ku ci nekk aj na garde ñi ngi tey baaraam ñaari mbari dóor na ko ñoo ngi kor na ko ña ngay rokkatan se bàyyante nañ ñoom ñaar combat bu métti nag ci ñoom ñaar dañoo xaw a tolloo laf ñoom ñaar dañoo xaw a tolloo doole muy combat bu am solo tey ci Maniang Soumaré waaye naa ko waa ñëw tëg combat bi nag combat bu am solo la muy bu neex combat baa ngi noonu ndeysaan ñi ngi léewtoo ñoom ñaar ñoom ñaar ñi ngi léewtoo ci diggante Bouba jaxaw ñi ngi léewtoo léewtoom kaw ndeysaan ñi ngi damante baaraam ku ci nekk yaa ngi ak sa garde jàppante nañ maa ngi koy rokkas attention laa ilaha illallah ñoom ñaar dañoo xaw a tolloo doole nag ñoom ñaar ñi ngi ci digg géew bi nanguwu ñoo dem ca saako ba neen ku ci nekk nee na maa la man ñi ngi koy jaayante ñoom ñaar ñi ngi léewtoo ca kaw ba des fois ñu nu tekk ñi ngi tey baaraam ñoom ñaar muy combat bu am solo tey stade Maniang Soumaré combat bii nag combat espoir la ndeysaan ña ngay takk na ko takk na ko maa ngi koy takk na ko rappel na ko ca suuf attention attention ñoom ñaar maa ngi koy attention laa ilaaha illallah lii kenn musu koo gis ndeysaan ku daan moo daan Bouba Diakhao fii jee Sadio Maniang Soumaré da koo tak ko mu nek combat bu bom solo ndaysan da ko Wanda doole. waa ci diggante. ah ndeysaan wala ndeysaan ah lamb tay amna solo fii tey jee Sadio sumaré ndax Inakwa ñi ngi seen premier édition ñi ngi nii ñuy doog a tëgg làmb fii ci stade Maniang Soumaré ci diggante Laye Gothé ak Da bu Texas ñoom ñooy bëre grand combat bi di drapeau Idi Thiam mu nekk lu am solo ey mbay waa lii day tey ah jàppante nañ ñoom ñaar ci diggante caat Ama ak ki nga xam ne mooy lay Dragon ñoom ñaar ñi ah ey eh, ñi ngi ñamante kat ñoom ñaar ñam na ko arrière ah ah attention ñu ngi doorante ñu ngi doorante attention ña ngay ñamante maa ngi koy roof comme drapeau mareyeur lañ ko tuddee ñu ngi koy roof ba mu saf ña ngay roofalante attention ña ngay doorante ña ngay roofalante woy sama ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi bëgg a nax sama ah attention jàppale attention laa ilaha illallah laa ilaha illallah ah jël am na arbitre lu mu wax da ko dóor jàpp ba fakat ko mu daanu ndeysaan ma nga ci digge gew ba arbitre bi al bashir Beauregard ma convocateur ancien president de l'UNACOIS jërëjëf jërëjëf Alaaji Beauregard waay il n'a pas jàppoon kontaan pardon monsieur Adama Niang monsieur Adama Niang phytosanitaire Adama Niang sopp de baax

ñi ko tëgg mooy waa INACO waa jàppo Gesso attention Gesso Thiatou Diobass kan moo daan waa ndeysaan da koo takk takkum kaw daal di koy fàqat moo daanu ah ndeysaan Gesso Thiatou Diobass Thiatou Diobass waa waa ndeysaan ci diggam Gesso ak Thiatou Diobass da koo takk takkum kaw daanu koy fàqat ah moo daanu ndeysaan koo takk takkum kaw daanu koy fàqat moo daanu